بعين بليت بحب المصطفى القدم أحمدا أبي الكون والأخلاق فرعا ومحتدا أتاني هواه قبل أن أعرف الهوى صليت بنيران السياق يا أحمدا علقت به والناس في سنة الكرى تمتعت منه الدهر إذ كنت مفردا وزحمت في هذا الزمان وإنني لفي غيرة ممن يروم محمدا ولكنني جليت قبل سباقهم وقد نلت تبريز القرون لأحمدا ولملا وحذ العبد عذ مليكه فطو يمين الكون عبدا مصورا ألا يا رسول الله وارفع شكايتي إليك وحالي ما ترى العبد سودا فهاجي وهاج المسلمين أهلته عليك فطبت النفس حرا مثرمدا زماني طلق الوجه غير مكدر أروه وأغدو دائما لن أكمدا صلى الله عليه وسلم بين بوليت نطوف نما bi xubbil Moustapha ci bëgg ku ñu tànn ki mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na man yàlla moo ma nattoo bëgg yonent bi yonentu bobu sallallahu alayhi wasallam moy kan mu al qadmi moy ki kaste yonentu yi mom la yàlla waxone ma kana kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa xaatima nabiyina kon mo kaste yonentu de koka moy kan ba legi mu ahmadan moy ahmad abil kawni moy bayi kawnu bi wal akhlaqi moy bayi minde fi yëpp farxan kacay doom wa maxtidan ak ñey cosaan cosaani kawnu bi cosaani mbindeef yi mooy suñu maam aadama kudut aadama nag waaw ab banqaas nga ci ci mbindeef yi de yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne mooy bàyyi wujud bi yëpp ndax nee na ana minallahi wal muminuuna min nii man maa jógee ci yàlla waaye jullit yi yëpp ci man leen joge bayina lolu adabu saran yi la rek waye lépp lu yàlla bind yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam la jógee benen hadithul qursi ñewna yàlla ne ko qalaqtul qalaqtuka li ajli wa baqi al khalqi li ajlika bind la ngir sama bop yow yonent yàlla muhammad waye wujud bi yëpp dama ko bind ngir yow de kon mom moy baye wujud bi denga moy baye bàyyi mbindeef mo xam doom yi la wala baay yi la de comme nam ko waxe woon nuruhu awwalul wujudi wujudan fa huwa aslul usuli wal anjaali yonent yàlla muhammad moy ciosanu baay yi mooy cosaanu doom yi de loola tax ibnu farid bam labe ca géeju yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam di tagg yonantu janok aadama ne wa inni wa in kuntu bnu aadama suratan فلي فيه fiihi شاهد shaahidun mu ne wa inni naka man wa in kuntu ibnu aadama donte doomu aadama la suuratan ci melo fa lii fiihi maanan am naa maanaa moo xam ne shaahidun bi ubuwati mooy tegtale ne maay bàyyi aadama waaye loolu ci maqaamam yonentu rek la ko mën a waxee de ndax yonentu mooy ruuxu gi nga xam ne lépp lu yëngatu rek looloo ko yëngat mooy mbootam yàlla mi nga xam ne lépp lu xam ca mbóon moomu la ko yàlla xamalee de bàyyi nag ne kooku la ma yàlla na too ma bëgg ko kañ nga ko bëggoon bàyyi ne yàgg na bi may bëgg yonent yàlla Muhammad booba xamaguma mbëggeel ataani dikkal na ma xawaaxu bëgg yonent an aarifal xawaalu njëkk may xam mbëggeel mbëggeel ak baay fii nag man nga natt ma ne woon ca madinatu مولانا شيخ ابراهيم مباغي لام تي يوننتو كين مونو كو ناتالي مباغي لام تي يوننتو كين مونو تولالي دغ دغ جيغي هون نا دايو سي بغيل موم باي نياخ رد الله نو واي مباغيل غا من نا غنا كاوي نك من نا ييغ تيا غنا موم مو ني وخون ني وا ان هذا العبد غيب الهنا وقلب الورى والذات فيه تجلته جامبانغوك mooy baatinu uluhiyatu mooy ah, mooy moy zaatul aliyati bi mooy xolob mindeef yi ci moom la zaatul aliyati def te jëlli moo ñu waxoon it ne bi kanziyatin qad kuntu qabla taarufin taharraka min da sirri ma kaana saakina ba yàlla waxee ne kuntu kenzen lam oraf man baay foofa laa nexoon booba yàlla dafa gut taaruf xamante gut ak kenn wala xam loo gut boppam pour ñu mën koo xam ndax yàlla moo ne kuntu kenzen lam oraf fa ahbabtu an orafa fa xalaqtul xalqa fa bi yaarifuni nekkoon naa trésor nekkoon naa ndàmbuloo xam ne kenn xamuma bi ma bëggee ñu xam ma ci laa bind mbindeef ci mbindeef moom lañ may xamee fa ahbabtu googu nag muy mahabbatu googu yàlla wax foofa la sirub mahabbatu génnee mahabbatu googu mooy mahabbatul ula mooy mbëgg gu njëkk ga mooy mbëggeel gi nga xam ne mbëggeel jiituwu ko mukk moo tax bàyyi ne bi may bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu xamaguma luy mbëggeel ataani dikkal na ma xawaaw ak قبل أن أعرف الهواء نجك ما يقم بجل فلي تجار لفنما لك يفنما بنيران الثياقية كي سفر أو صب جيم صب أحمد أحمد صب جيم صب ينتهي الله محمد صلى الله عليه وسلم صب يكون سفر لك مدي بجي خل متك أم ين ذات الآليتي بمو بجي حقيقة المحمدية واو دنجا نيار أموتو فري la ne woon fële rek moo mujj dégg nga nekk fii adal di abad abad di adal kon kooka lakk na ko jeexal na ko takk de xaalixtu bihi aju naa ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam war naa su te fekk booba nit ñi ñëpp fii sinatil kara ñu ngi ci dégg nga taru ngementu bi may bëgg yonentu may aju ci moom booba nit ñëpp a ngi gémmentu man a xanaa moom bokkul ci nit ñi ankañ waye fi muy waxe de taxout place nit Baay Ñas radiyallahu anhu yonent yàlla Muhammad ak Cheikh Tidiane kenn ku ne ci ñom nit nga mo aadama nga waye wax nga wax juy tegtale na yow do doxula won nit yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam neena nee na kuntu nabiyan aarifan bi nubuwati wa aadamu bayna al maa'i wa tini doonoon naa yonentu xam ne yonentu laa te booba aadama mi bàyyi mindee fi mu ngi ci diggante ndox ak ban kon moom booba lum doxoon leneen la waaye du wutoon nit Cheikh Tidiane loolu la wax kuntu waliyan aarifan bi wilayati wa aadamu baynal maayi wa tiini doon naa wali yu xam ne wali yu laa te booba aadama ngi ci diggante ndox ak ban ñi xam ne moom it booba du wut nit bàyyi ne bi kanziyatin qad kuntu xabla taarufin taharraka min da sirri ma kaana saakina waxaat feneen ne wa kuntu xurufan wa توقعها shaxsi mata qaama mudhira ñu xam ne booba nekkutoon nit kon nag fi bàyyi di waxee moom foofa mu ngi waxee ci adaliyatu moom Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ne bëgg naa yonent yàlla Muhammad waaw fekk booba ñëpp a ngi ci gémmentu de ndax booba kenn amagut tamattaatu bànneexu naa minu ci yonent bi sallallahu alayhi sallam addahra diiru jamono bànneexu naa ci moom diir bu yàgg it ngir booba kuntu nekkoon naa mufradan di ku ñu wéetal man kete ma fi ne cundum mbindeefam yàlla mu may wéetal mbindeefam yàlla mu may wetale ci bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam boba boobaa guton de waw li fi ne ci xam-xam dal deug deug ken sañu ko wax wa duximtu fi hada zamani wa innani la fi ghiratin mimman yarumu muhammada mune bayne wadhuhimtu في هذا الزمان وإنني لفي غيرة ممن يروم محمدا من ما بغون يننتو أجوان تي موم وبا نيب نجيوان تي تارون جمنتو من النوم العدم لا دو نوم العيون نلاوك نيكلا واي دو نلاوك أي بات بابا كان دفعي مطا مفيد كوني بان نيوكونا تي يننتو يالله محمد ab diir boo xam ne man kese maa fi ne woon ne cundum kenn ku may wettali nekku fe woon ak yonentu yonentu sallallahu alayhi wa sallam moom it firi na ko ci waxam ne lii waxtun ma rabbi laa yuqarribuni fiihi nabiyun mursal wala malakun muqarrab am naa waxtu woo xam ne nekk naa ko sama borom dara jegewu ma fa woon ab yonentu jegewut ma woon malaaka mu yàlla jegal payem ba newu fa woon man rek maa fa ne woon de moo tax bàyyi كا فاري من وابا موني إنني قبل البرايا هبو سغل الجناني برضت حضرة طه قبل تكوين المكان وله عمر طويل قبل تقدير الزمان بنو بينلا إنني قبل البرايا هبو سغل الجناني من تاينك لا جمونو نيخ كوني تخاو ما بغي يوننتو تاي لا جمونو نيخ كوني نان باي ما بغي wadu ximtu rëy rëy loo na ñoŋ man fi haada zamaani ci bile jamono ah looy déggee loolu nag kon nga xam ne jamono ba mu doon wax moom du jamono bii waxuma du jamono bii waaye booba jamono amagut sax dégg nga wa inna nii naka man baay la fi xiiratin maa ngi ci fiiraange gu mat fekk mi man yaroomu ci képp koo xam ne yaa ngi sàkku muhammadan muhammad mu ne jamono bii nag ñi ngi xëccoog man yonentu yàlla muhammad waaye fiir naa lool jikkoy xut yonantu sallallahu alayhi wa sallam aka wax dëgg lu tax fiir na ci kuy xut yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñaar rek moo mën a nekk waxtu woo janoog yonantu baay réer la boo janoog baay yonantu réer la waaye ne fi baay ne ngeen di xut yonantu moom du mën a nekk mukk ndax moom waxoon na ne yonantu yàlla moom sallallahu alayhi wa sama lépp delu na ci yonentu waaw waxon na ne sama lépp fa kulli masghulun bi kulli muhammadi may ki nga xamne sama lépp wo lépp yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fenen feneen ne waxaali wa tamyizi ilayhi yusiru sama xaal sama tamyiz lépp yonantu yàlla muhammad salallahu alayhi wa lay junju su ngeen ma foto woon sax su ngeen ma foto woon sax ci xaqiqa da ngeen fekk ne du huma kurut jaam boobu nga xam ne ci moom la ñuy bànneexu mu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bàyyi fiir na ci yonent lool walakin na nii waaye li fi ne man jallaytu raw naa jiitu naa qabla sibaaqim njëkk seenug rawante balaa ñoo jóg di rawante jëm ci bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekk man jiitu naa leen yemuma ci jiitu leen waye ku yegg ci bëgg yonentu sax ci man rek nga mëna jaar pour bëgg yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ndax may wa waasitaab yonentu ci mboolem jaamam yi waxna ko ci wolof ñi dégg na yonentu yàlla muhammad buntu bi yàlla jaambu xébu bi buntu bi yonentu yàlla muhammad lépp lu way bëgg ci yonentu so jaaru ci jambi do kam moy baye molana cheikh ibrahim moo tax mu ne waqat tabriz al quruni rawug maasi li ahmad ñeel ahmad tabriz فكي من برث يبرث كوكا جينيلا لا موي روال كون ما في يب كلن جيني يبولن تي حضرة الأحمدية كوكو موي مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه الحمد لله ولم لا أنا لن موتخبلو لدمنا نك وعذ العبد تتدنغاك جنبي عذ مليكي موي تدنغاك موي تدنغاك سنغم موي تدنغاك برمم bu fekke ne jaam bi te mooy jaamam yàlla bi deug deug deug moko waxal bopum jiñu ko ko mo wax ne ara annani de nga abdul malik haqiqatan wala hadha lil aghyar fi al qalbi wala shayna gis ne yàlla bi haqiqatan ci deug deug gis ne sama qalbi ludur yàlla amu fi place gis ne sama qalbi len luy ayib amu fi place te kon jaamu bi yàlla bi xaqiqatan mooy Mawlana Cheikh Ibrahim keneen ku dul moom jaamu bi yàlla nga waaye sen nga de bu fekkee mooy jaamu bi yàlla nag jam na tedd nga sangam di toll noonu la tedd nga ba di toll moo tax bàyyi ne walim la ana lan moo tax ba loolu du nekk te wa izzul abdi tedd nga ak jaam bi izzu maliki mooy tedd nga ab sangam fa taw yamini topp sama ndeyjoor alkawna kawnu bi abdan may jaam musawadan ba di bu ñu ñuulal ànd ak loolu yëpp wala musawadan ba di bu ñu sangal baat bi day firi ñaar yëpp ndax sawada yu sawidu mën na firi ñuul bu fekkee dégg nga ñuul mu namu ci boppam ndax nit ku ñuul kukku la sawada yu sawidu day firi tamit sangal mina siyaada kon mën na mën na jógee ci suud mën na jógee ci siyaada bu mu ci mëntu daal day delu ci Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu lu tax ta jam bi nga xamne kawnu bi yep top nen aw yonam kawnu bi yep top nen nday joram ta fek mu don jam bo xamne jam bu ñuul kukula wala mu don jam bo xamne jam bo xamne yalla ko sangal ci mbolam jami ala ya rasulallahi e yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam warfa yakatil fikayati samak tawat ilayka jëmale ko ci yow hali samay mbir na nga ko yëpp na nga ko yëkkati yëpp jëmale ko ci yow de maa tara feeg yaa ngi gis alxabda jàmbi sawada muy ñuulal ay këyit di la tagg moom ñuulal la fa xaaji sama xaajo wa xaajul muslimina ak xaajoy julli di yëpp axaltuhoo wàcce naa ko alayka ci yow lépp luy sama soxla ak lépp luy soxla ab julli di wàcce naa ko ci yow yonent yàlla mohammed sallallahu alayhi wa fa tibta na nga tey an nafsa ci bakkan xuran may gor mu sarmadan ba di bu ñu dappateel de ثمانية القلوة غير مكدر أروه وأغدو دائما مكمدا أغادي الصبوها عند أفضل مرسل ومن برسول الله لم يخشج المدى بين زماني سما جمانو talqul wàcci aji booy la ji cëlmaay mooy jamono bu set wecc la jamono bu leer nañ la xayra mu kadrin du lu ñuy naxal de aruuxu danaa xëy wa ax doo may gontu daayiman ba faw lan o kammaɗa defuma jakkal defuma tiitalde o gaadidana kayi asabuha mi nanuk suba inda afdali mursalin fakki ganci yonenti mu yonenti allah muhammad sallallahu alaihi wasallam saa yu ma xëyee sama première kaasu café bàyyi na ci yonenti yàlla muhammad laa koy naanee wa man bi rasulillahi képp koo xam ne nag sa lépp ci yonenti yàlla muhammad lay amee